donc Oustaz am ab laaj boo xamante ni c'est par rapport ak li nga wax. fii réew mi toll. duma ci commentaire ndax ñëpp gis nañ ko mais bu réew tollee fii lan moo ciy taxawaayu borom xam-xam borom xam-xam laa wax. jërëjëf waxuma polito politologue spécialiste toog ñuy toog ci plateau yeeg yooyu dama taxawaayu borom xam-xam euh, lan la war a doon. mooy woo ñëpp ci jàmm. Mhm. comme na ko Seydina Muhammad defee woon. sallallahu alayhi wa sallam. jamono bu nekk yàgg naa yëngu. Mhm. comme ni senegal yëngoo jamono bi mhm. Mhm. xam nga pap jamono yonent bi bi jamono yëngoo. nan la Seyduna Muhammad taxawe yonent bi dafa génn woo saxaaba yi ban ñëw. mu ne leen ala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu taxaababtum ndax bëgg ngeen ma laaye biire leen loo xam ne su ngeen ko defee dangeen bëggante. comme bañante bi xew léegi ci jamono. Hmm. nit attana xool moroomu nitam rey ko. Hmm. am na fi. ngir politiku àddina bii. Hmm. yonent bi ni ndax bëgg ngeen ma conseiller leen loo xam ne su ngeen ko defee da ngeen bëggante ñu ne ko waaw yow la ñuy déglu mu ne afsu salaama baynakum wisaare leen jàmm ci seen biir alaaji pap mag ñi ñooy wax ni lu nit nekk te jàmm amul da ko teg ba jàmm am ndax lu dul jàmm jàmm ko gën wax tey xam nga lu yàlla wax xam nga lu bi wax. Mhm. al fitnatu. fitna ngi ci biir fitna. kon baatu fitna ci ci ci ci ci ci baatu arab la arab la. Ah, waaw arab la al fitnatu. fitna arab la. al réew mi dañoo ngi ci fitnatu. <laughs> waaye man al jàmmatu rek. al toogatu sa kër. al liggéeytu. al ñibbitu. al toog ak famille. papa ak yaay al appel. ndax yéen ngi ci jàmm bu dee ñu ngi ci jàmm al baax al toogatu rek parce que al fitna al fitnatu léegi. yonent bi nee na al fitnatu. askay fitna. hmm naimatun wala naimun. nelaw yonent bi neena fitna ngi nelaw de. nelaw fitna ngi nelaw. bi yàlla binde da koo jox confirmer mom fitna pour mu nelaw. te dam am lu koy yee moom it fitna. legi nak xam nga lu yàlla wax. laana allah man ay khazaha yàlla rëbb na ki sol sa dal fek fitna di nelaw nga yeeku mu yew kon de maa yey toogatun al dematun non al fitnatu fitna fitna naa imun mi ngi nelaw ah. laana allahu yàllaa ngi rëbb mm-hmm. man ay xasaha ki dem fekk fitna di nelaw mm-hmm. mu këpp-këppal ko ni ko jugal mm-hmm. xam nga lu yàlla wax wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xas yàlla nee na moytu leen fitna ñu ne ko lu tax mu ne parce que fitna boo ko yeewee du yem ci bopp yow mi ko yee ñëpp lay tàbbi ci seen kaw ña ca seen yoon nekk ak ña seen yoon nekkul tax mag ñi naan ay du yem ci boppu borom loolu dégg naa ko te wax naa ko sànq waaw mm. alaaji Pape réew mi mm. lu fi jar rayante amu fi lu fi jar xiiroo beeg ngaayoo bi fii Sénégal toll alaaji Pape mën naa ñàkk suñ boroom yor nguur ñii fi yàlla teg dañuy stage ku ci toog ba sa ay jeex nga wàcc dem sa moroom ñëw toog sunu borom nee na boo waree wàcc pexe moo mën a def di nga wàcc mais am na am na ñu am na ñu tëx ñoo xamante ni fi mu ne ñu yaa ngi wax mais ñu ngi naan la nii xam nga lu yàlla wax pap